ak suñu gan di Amadou Lamine Sakho ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay. Ah, nga nekkoon secrétaire particulier bu président Ibrahima Seydou Ndaw nekkoon maire bu Kaolack bokkoon tam ci euh, bloc démocratique sénégalais euh, dinañ waxtaan ci parti socialiste jaar-jaaram histoire am euh, ak lépp waaye laataa ñu ci egg xanaa rek wax tuuti ci Ousmane Tanor nekkoon secrétaire général bu parti bi lan nga mën a wax ci moom. waaw ñu ngi leen di nuyu. di leen gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen ñu invité pour permettre ñu wax si suñ xalaat ci euh, loolu luñ si war nag du bari ndax Ousmane jotuñu woon a xamante maak moom jëflante wuñu ak moom dama ko daan dégg rek gis taseeg moom ci levée du corps yi ñu nuyuwante ñu kii mais mosuñu am benn collaboration pour permettre ma xam ko mais li ma dégg euh, ci moom loolu rek laa laa na laa nangu wéyal ko euh, di ko ñaanal yàlla yàlla xaree ko ajana dee du naqar métti la masawu ñëpp ñi nga xam ne métti na leen mm-hmm. di ñaanal yàlla xare ko ajana teg ñu ci siraatal mustaqim ba bañ koy fekki te mu yéex. dara jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. aha sëñ bi Sakho li nga xam ne moo di parti socialiste moom la Ousmane Tanor Dieng doon jiite. Mm. jiite na ko ci diirub ñaar fukki at ak euh, juróom euh, ñett ñaar fukki at ak ñett loolooy sabab bi sax ñuy waxtaanee ci parti bi ci ndorteel bi beneen tur la amoon euh, mu dem ba soppeeku ba ñëw nekk parti socialiste ndax mën ngaa wax tuuti ci jaar jaar yeeg fi nga xam ne foofu la parti bi jaar ba egsi fii nii. waaw euh, comme ni nga ko waxee léegi ñu bëri dañuy def erreur ci parti socialiste surtout niñ ko sosee Ibrahima si Ndaw moomu nga tudd moom moo sos parti bi. Hmm. du Senghor du keneen du du keneen. du te man ñi ko wax te télévision laay wax àdduna bi yëpp di ma dégg maa ngi preuve maa ngi fu ko Ibrahima Seydou Ndaw bind digganteem ak Senghor ci jamono boobu. Ibrahima Sédhiou Ndaw di sos parti bi Senghor dafa bëggoon a ñibbi France moom la ko doon wax si ne ko dafay bàyyi politique ñibbi France continuer di jàngale français au petit français de France Ibrahima Sédhiou Ndaw ne ko dangay toog ñuy sos parti xeex ak SFIO mu ne ko loolu mënut a nekk parce que Lamine Gueye doole ji mu yor ak ni ko administration coloniale jàppale ak njiit yu bëri ci réew mi ànd ak moom mënuñu xeex ak moom Ibrahima Seydou ne ko nag mun na nekk te dina nekk boo ñu boo si jàppee xayrun boo ci jàppul ñun décidé nañ pour def ko yow nag su fekkee ne da nga bëgg a ñibbi France da nga dëkk mun nga dem dal di ko wax ci français ne ko mais nu nous entendons rester nous organiser nous battre pour changer le pays au lieu de changer de pays Senghor ne eh Ibrahima xamoon nañ ne nitu politique gu mag nga mais mosuma xam ne poète nga loolu Senghor daf ko daan répété toujours ci ñi ko ñi ko jege noonu la Ibrahima Seydou Ndaw sosee parti bi ci hôpital principal fekk mu génn ci accident bu garaaw ñu plâtré ko ci tànk yi ba ci bopp bi Senghor ñëw seet si ko Senghor ñëw set si ko en même temps doon ko tàggu ne day bàyyi politique noonu la ko sosee ci kanam Boissier Palin Léon Boissier Palin doonoon seen xarit doonoon seen àndandoor. lan moo tax loolu duñ ko euh, fësal euh, Amadou Lamine Sakho. du euh, parce que Senghor bi muy laata dem dafa yàquwanteeg Ibrahima Sy Ndaw en 1958 ci la commencé nag def loolu tubaab di wax politique d'ostracisme maanaam fexe sël suul ko. boolu moo tax ba même émission yi griyo yi daan def ci euh, télévision ak rajo Sénégal ci rajo Sénégal lépp dañ ko dañ ko effacé kenn mënatu ko gis fenn rien pour isoler ko nangootu ñoon sax nit kuñ mose a ñëw sax si moom di ko seet si boo génnee te nekk ci administration bi dañ laa sanctionné foofu yëpp jaar na ma maa ngi teg euh, ay preuve ci li may wax lépp lu ma fi wax ku ko ku ko wéddi rek na ñëw ma jox ko preuve mais Senghor Ibrahima Seydou Ndaw moo ko créé ni mu créé parti bi. BDS BDS moom ci boppam moo tudd tur yi bloc démocratique sénégalais Boissé Palin jël si note ne ko ñaata carte la ñuy euh, imprimer mu ne ko 3000 Senghor de bëri fi mu toog ne ko mille dafa ëpp Ibrahima seeraate sa xel. fii ñu toll di créer parti d'opposition ak 3000 cartes dafa ëpp nañ def 400 300 wala 400 au fur et à mesure ñuy jaay carte ñuy dolli mu xool ko xool bu jéppi ne Boissier dégg nga li mu ne ko dégg naa ko président Boissier moom moo dem mission catholique de Dakar commandé fa carte yi fay ko ci poosam indil ko ëpp Ibrahima Seydou Ndaw ci hôpital principal jox ko ko Ibrahima Seydou Ndaw commencé woo nii njëkk woo première Mamadou Dia moom la njëkk a woolu ne ko sos nañ parti Mamadou Dia kontaan si loolu mu ne ko léegi nag dafa am ñetti mission yu ma la bëgg a dénk mu ne ko ban ak ban mu ne ko secretariat général du parti bi yow laa koy dénk provisoirement ba congrès buñ bu buñ seggee eggee ci congrès bi ba ba bu nit ñi doyloo sa liggéey ñu falaal la buñ ko doyloo jëlaat keneen. document de base yu parti maanaam statut yooyu programme yi yaa koy bind da ngay ñëw indi kayit ma dicté la les grandes lignes nga bind ko implantation parti bi ci biir réew mi ak euh, ni ñu koy sampee yow laa ko sant yaa koy def ci la Boissier Palin génn dem euh, le même Boissier Palin nit koo xam ne li mu def ci réew mi kenn xamu nam toll mais doo ko dégg mukk Boissé Pallon moom moo dem ci euh, euh, manutention africaine jënd fa benn oto bu ñu naan car rapide ndondi ñëw jox ko Mamadou ja moom la ja si sillonné Sénégal ba mu jeex samp parti bi structuré ko loolu mooy li am. ci parti socialiste. nii la parti bi juddoo ti ñetti étape nag. benn bi hôpital principal la. ni ko Ibrahima Seydou Ndob génnee ci làmmiñam sos ko moo tax d'ailleurs wax na ko ci benn euh, euh, lettre bu mu bind Senghor bi ko Senghor di wax naan ko da ngaa war a bàyyi politique te ñëw nekk suñ conseil nekk suñ bàyyi dégg sa état de santé ak sa âge mu ne ko certes j'ai 73 ans je suis invalide mais peut-on ignorer peut-on oublier qu'en 1948 c'est l'infirme que j'étais qui a su et osé prendre seul dans tout le Sénégal la dangereuse initiative de créer un parti politique contre la SFIO c'est clair Hmm, parce que dañuy faral di wax ci xañ na ci ñi bind ñi euh, bloc démocratique sénégalais ak après parti socialiste sénégalais tamit ñoom ñoo ànd dem ba ci kanam ngir mën a euh, ñu indi euh, parti socialiste mën koo taxawal. waaw BDS lañ njëkkee dem ci BPS soog a nekk UPS soog a nekk PS. Hmm. mais Ibrahima Seydou Ndaw moomu nag en cinquante huit la yàquwante ak Senghor. Hmm. bi mu demee mu teg ci ab diir Senghor yàqwante ak Mamadou Dia def ko ci kaso ñu dem ba mu yàgg mu yàqwante ak Boissé Pala hmm. teg si Mbaye Ndiaye Dégay hmm. Lamine Gueye ñëw nag ànd ak moom hmm. nekk président assemblée territoriale moom mu nekk euh, euh, président euh, Euh, président de la république. Mm-hmm. Euh, euh, kii Mamadou Dia moomu bi nga xamee ne def na loolu ci parti bi poste bi ñu ko njëkk a proposé muy poste sénateur daf ko bañ ñoom daanu xëccoo poste daanu fëgg de nit naa maa def lii. Mm-hmm. Ibrahima Seyno mosu la wax ne moo créé parti bi mosu koy wane ci comportement bi. lan moo tax euh, revendiqué wu ko woon. jamono ji nga xamante ni doon dund. modestie parce que boobu kenn du xëcc pour dara ñëpp dañ doon liggéey rek pour pour réew mi. Hmm. est-ce que dans le temps quand même euh, l'idéologie du parti a changé boobu ba léegi ni mu évolué dans le temps ba jamono ji ñu toll. bu métti ah, ni nga xoolee ni ngay gisee parti socialiste. bu métti parce que parti socialiste li ko indi ci parti SFIO lañu nekkoon ñoom ñëpp ak Lamine Gueye hmm. mais doxalinu parti boobu. politique gabégique bi alal beeg tasar pasare loolu moo taxoon ba ñoom ñu créer courant ci biir ut journal mu ñuy wax condition humaine hmm. muy Mamadou Dia Ibrahima Seydou Ndaw Senghor dal di créer benn courant mu nekk socialisme africain socialisme sénégalais lañ bëggoon lañ bëggoon a def hmm. après lañ dem ba Mamadou Dia def ko socialisme autogestionnaire booba jamono nag bi ñu sosee parti bi awoon nañ tegoon nañ ci yoonu changer réew mi changer doxalinu nguur gi waaye bi ñu demee ba ci biir la ñu yàqwante jël bi ñu jëlee pouvoir bi euh, en 1952 hmm. euh, Ibrahima Seydou Ndaw nekk président assemblée territoriale Mamadou Dia nekk euh, chef du gouvernement dafa yëf yi dafa doxoon correctement même bi Senghor nekkee président de la république diggante Senghor ak Mamadou Dia mosul am kuwaak ci ni ñu doon doxalalee kenn munu ko wax. Mm. dañ daan diisoo di Mamadou Senghor xam ne Mamadou Dia mooy borom xam bi moo mun a yor réew moo mun a doxal mu jiital ko topp ci moom lépp dox moomu bi nga xamee ne proposé nañ ko poste sénateur dafa lànk bañ. parce que ñoom daanuñ xëcc pour dara. Hmm. seen intérêt ca gannaaw lañ ko defoon jiital intérêt réew mi. léegi ban jàngat nga am ci parti socialiste. jamono ji Ibrahima Seydou Ndaw hmm. Ibrahima Seydou Ndaw moo ko wax ne ko nangul post bi parce que wéroo te soxla nañ la. pro Mamadou Dia avec euh, dafa amoon problème bët ak problème gastrique mu ne ko boo demee France nag ci post boobu da nga jege euh, euh, médecine moderne ñu faj la lii moo tax Mamadou Dia accepté. léegi nag lan ba bi ñu jëlee pouvoir bi ñoom Senghor Mamadou Dia Ibrahima Seydou Ndaw lañu nasoon ci lañ tegee indi changement ci réew mi hmm. politique de rupture mooy première alternance avant l'indépendance c'est important hmm. politique de rupture boobu nag bi ñuy dem ba 1957 la ci tubaab bi dugal seen loxo parce que boobu indépendance bi mënatuloon na ñàkk te tubaab bi buggoon na fi teg nitam seet koo xam ne nag nitu réew mi la ñu beddi ko ci lañ organiser problème yi yëpp ba éliminer Mamadou Dia Senghor toog bi Senghor toogee ak léegi 1963 ci la lépp yàqoo ci parti socialiste lii mooy dëgg. Hmm. ci la ci la parti socialiste. defee déviation. kon mën nañoo wax ni 63 ba ba tey jilee daanaka parti socialiste li taxoon ñu sos ko defu ko. defu ko 63 ba léegi. dafa dafa jaar ca kaw defu ko parce que euh, booba parti bi ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon ci bopp bi daanuñ décider lépp dañ ko daan décider ci biir réunion waxtaan buñ si d'accordee ñu def ko buñ si d'accord ñu wate ci seen biir buñ génnee kenn du xam. kenn du dégg noonu la parti bi doo doxee da am démocratie interne ci biir tegu ci la taxoon ñu sos ko mooy defar réew mi mais à parti de 1963 ci la lépp ci bi nga xamee ne Senghor ñooñu ñëpp éliminé leen ci la toog nag nekk buur ak bummi di def di dindi parce que ñi nga xam ne ñoo ko formé moom formé parti bi gisatul leen mu nekk nag ci ci yaataa yu mbëpp di def lu ko neex. Hmm. lii moo indi élimination bi ñi bokkoon ak moom sos parti bi ku si mel ni am Alioune Badara Mbengue ak ñeneen ak ñeneen ñu dàq leen ne. ay mag lañ. Mm, ci ci jamono ji euh, Amadou Lamine Sakho 2019 gis nañ ni parti socialiste bu tey jii mi ngi traversé ay crise ndax bëri na ay kàngam yoo xamante ne dañoo beddeeku dem def seen i courant bopp ber seen daara bopp euh, ci sa gis-gis tamit lan la ñu war defaat ngir mën a euh, joxaat doole parti socialiste surtout ci wàllum politique ndax booy xool ci élection 2019 yi weesu daanaka amuñu woon candidat mu nekk guléet ci bañ ko sosee ba léegi. dañu war a dellu ca cosaan la. nañu ñëw waxtaan ak man waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne xam nañ cosaan bi ñu tegu ci delloo si parti bi te cosaanam ñi nga xam ne ñoo koy sos def si li ñuy defit ñu ormal leen méthode yi nga xam ne moom la parti bi daan doxe ñu delloo si ko doxale ko teg ku si ne jël intérêt parti bi intérêt réew mi jiital teg intérêt parti bi soo ko teg seen intere ñu def lu lu lu ñu mën a def pour réunification li tubaab di wax réunification parti bi ñu def ko. maanaam li ñu naan Ousmane Tanor Dieng nee na loolu la bëggoon retrouvailles famille socialiste maanaam ñoom ñëpp ñu dellu siwaat ci biir parti bi ñoom ñëpp ñu dellu ñoom ñëpp nag bàyyiwuma kenn ñoom suuti Souti rek ñoom euh, Robert Sagna euh, Moustapha Niass nag ñëpp ñu mel ni Moustapha Niass nag je lance dama leen di lancer un appel ñoo war a def. liggéey bi. ndax loolu mënati na nekk. dina bu bu ah dina jafeñ parce que jikko yi ñoo yàqu jikko yi ñooy yàqu d'abord ci biir parti bi yàqu ci réew xam nga bu ñu demee ba tey nit di taxaw ci rajo bi naan Senghor moo créé parti socialiste loolu lu ko gën a doy waar amut parce que xamuñu te duñ laajte seen bëgg-bëgg rek lañ jiital waaye bu ñëpp jogee toog réfléchir xam ne parti bi yàqu na. te caaxaan defaratu ko. kan nga gis ne jamono jii moo ko war a mën a jiite. duñ ne gisuma ci ñoom kenn ku ko mun a war a war war a jiite. ñoom seen bopp muy ñi dem ak ñi toog ñëpp. waaw ñoom ci seen bopp ñooy seet ku tane ku tane ñu jox ko. ku tane ci ban wàll ci ban anam. ci tout ci ci ci ci xam-xamu politique di njub ak sell surtout ci njub ak sell parce que dañ nekk jamono ju nga xam ne jamono njub la ak dëggu. la reconversion des mentalités yi taxoon du Dia xeex bañ def ko ci kaso bi loolu il faut que ñu delloosi ko jikko yi lañ war a defaraat jikko yi lañ war a defaraat parce que am na yoo xam ne man mënuma ko nangu. jikko yi lañ war a defaraat. soo ko mën a defar parti bi. te bu boobaa ku si ne nag sa intérêt personnel na nga ko yëkkati teg ko. fële ko waaw. Hmm. te seet li laay war a soli. Hmm. intérêt parti bi. Hmm. intérêt réew mi. Ah, jërëjëf ah, jërëjëf Amadou Lamine Sakho ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di la sant bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di ay kàddu ak njàngat yi nga xam ne indi nga ko ci parti socialist moom nag moo nekkoon secrétaire particulier bu président Ibrahima Seydou Ndaw nekkoon maire bu ah, Kaolack nekkoon tam membre fondateur bu bloc démocratique sénégalais ak ni mu ko waxee kon sos nee na parti socialiste dañuy desandi rek.